di bëgg trop ci wuyu si bii ngeen wuyu si Set Afrique ñun nag saay bu ñu wootee conférence de presse euh, dañuy gis ni presse bi yëpp ak média bi yëpp dañuy ñëw loolu euh, kontaan nañ ci lool euh, li waral tey daje bi mooy meet-up bi nga xamante ni moom la ñuy def muy rencontre économique bi gën a mag ci réew mi ndax daaw bi ñu ko defee ci benn hôtel fii si Ndakaaru deux cent cinquante directeur général ñëwoon nañ wuy suñu ndax dañu nekk ci benn euh, secteur bu ama am solo ñun cette Afrique mooy secteur événementiel euh, di secteur boo xam ni secteur bu ama am solo la ci économie te événementiel ni mu war a mel Sénégal melu ko lool su ngeen xoolee suñu gaynde yi jël nañ Coupe d'Afrique mu nekk mbégte bu mag a mag a mag a mag ci réew mi Sénégal ñëpp génn ñu gis opposition bi dem Euh, félicité président de la république ñu gis président de la république Macky Sall dem euh, jaxasoog opposition bi saafonte ak ñoom loolu li ñu ko may mooy secteur bi nga xamante ni ñun ci la ñu nekk mooy secteur événementiel. te dafay secteur boo xam ni dafa war a mën a yokk koom-koom ak économie Sénégal soo xoolee réew yi nekk Afrique yi nga xamante ni ñoo gën a dox wala ñoo gën a doxle ci secteur boobu muy Afrique du Sud ak marok ak Rwanda. ñoom dañoo jaar ci secteur événementiel pour développer seen dëkk fan yi yëpp xam ngeen ni euh, Afrique benn destination la amoon muy Cameroun ndax Cameroun dafa abrité dafa dalal euh, Coupe d'Afrique ñoom fi mu nekk nii rek seen ministre de l'économie et des finance bu ngeen ko laajoon retombées économiques yi nga xamante ni Coupe d'Afrique bi am na ko ci Cameroun dina mën a génnee alal joo xamante ni ju baree baree baree baree bare te Sénégal aussi euh, ak stade bi nga xamante ni président de la République ñu koy féliciter au passage dina ko inaugurer suba war naa mën a pose candidature am aussi pour organiser ci at yi di ñëw Coupe d'Afrique ndax secteur événementiel secteur la boo xamante ni ci la ñu mën a jaar ngir développer Sénégal ndax ñun suñu réew Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni réew mu mu mu mu mu benn réew la ci biir Afrique ndax bu ngeen xoolee fan yi coupe euh, coup d'état yi mi ngi si Mali Euh, boo xoolee régime ba fa nekk dañoo def putsch toog fa Burkina régime bi fa nekk dañoo def putsch toog fa Guinée régime bi fa nekk dañoo def putsch toog fa te ñun suñu réew di Sénégal dafay réewum démocratie di réewum jàmm nga xam ni élection euh, bu amee euh, dimanche lundi matin président de la république bu fekkante ni dañ koo daan dafay woo ki nga xamante ni moo ko daan élection locale yëpp ñii ñu génn nga xam ni aussi ndaw ñu baree bari jël nañ ay post de responsabilité ñu leen ciy félicité ndax cette Afrique si ligne éditoriale am dafay gunge ndaw ñi ngir ñu nekk ay décideurs ak ay leaders. donc suñu réew dafa nekk réew moo xamante ne war na mën a dalal événement yu gën a mag si Afrique parce que am nañu ay hôtel am nañ ay infrastructure yu ko mën am nañ ay salle de spectacle. Euh, bërki démb rek la dem fii ci si SICAD visiter salle bi nga xamante ni salle bu mucc ayib la c'est une infrastructure de première génération et d'un très bon donc dañu créer suñu entreprise 2020 Set Afrique ngir mu yëngatu ci secteur événementiel waaye événementiel institutionnel événementiel institutionnel mooy événementiel boo xam te ni dafay dañu koy dajeeloo di waxtaan ci koom-koom di waxtaan ci ay secteur maanaam ci euh, wàllum sàmm gi walla napp gi walla sport parce que ci vois ñun ci loolu la ñuy def donc ñu amoon ci événement boo xam ni wax dëgg fa nag yàlla chaque fois dañ ciy sant yàlla mooy meet-up de cette Afrique di événement institutionnel numéro un ren ñu koy def ak ku ñuy wax Babacar Ngom Sedima di parrain bi parce que dañu bëgg chaque année jël euh, benn capitaine d'industrie euh, wan ko ndaw ñi comme référence et je pense que Babacar Ngom Euh, président fondateur du groupe Sedima est une référence exceptionnelle pour la jeunesse africaine et la jeunesse sénégalaise Euh, c'est un capitaine d'industrie, c'est un patriote euh, remarquable, c'est quelqu'un qui a fonde sa structure, la Sédima. Euh, bu mu euh, taxawalee Sédima yàgg na góorgóorlu na ba Sédima tey nekk entreprise ak industrie yu gën a mag si si Afrique de l'Ouest ak ci Sénégal donc ci lañu comité bi gis ni moom en tout cas doy na sëkk pour ñu bañ a jéggaani di xool ay Mark Zuckerberg wala di xool ay Jack Ma wan ndawu Afrique ak ndawu Sénégal ni soxlawuñu jéggi Sénégal pour am ay référence et réew mi am na ay doomu Sénégal yoo xamante ni mat nañu sëkk ndaw ñi référence donc moom mooy nekk euh, parrain bi ñu jël nag ay panel yu am am solo parce que événement bi mi ngi am ci weer bi nga xam te ne ci la ñuy sargal jigéen ñi mooy le mois de la femme ñu jël benn panel tuddee ko femme développement nga xam ni dina am ay femmes yu emblématique ku mel ni Marie Odile seen Kantoucha ku mel ni Oulimata Sarr euh, ONUFEM ku mel ni Papa Amadou Sarr délégué général de la DER parce que DER aussi institution la boo xamante ni suñu partenaire la mais la DER c'est pour les jeunes mais également pour les femmes donc pour ndaw ñi la mais également pour jigéen ñi donc am beneen panel boo xamante ni dañ ko woowee les enjeux de la mobilité au Sénégal ñu fas yéene ci waxtaan Sénégal fan yi infrastructure yi nga xamante ni état bi def na ko fi lu mel ni TER bi impact bu muy am ci économie lu mel ni BRT bi nga xamante ni dans quelques mois dinañ ko inaugurer waaye lu mel ni Air Sénégal ak lu mel ni Dakar Dem Dikk ak autoroute parce que loolu moom mooy infrastructure c'est peut-être le train la route euh, tu vois et l'avion et autres Sénégal léegi si affaire infrastructure am nañ vraiment modèle d'infrastructure yëpp donc loolu moo nekkoon euh, ñu am panel boo xam ni aussi DG de banque yi dinañ si waxtaan mooy l'avenir de la banque au Sénégal avec le digital DG banque yëpp ñu woleen ci donc li waral événement bi dëgg mooy euh, dajale d'abord directeur institution yëpp ñu gën a mag Sénégal comme ni ñu ko defee daaw nga xam ni amoon na deux cent cinquante entreprise ren ñu jël entreprise yi gën a emblématique gën a sérieuse ñu fas yéene ñu fas yéene si woo si DG yi ngir ñu waxtaanee koom-koom parce réew dañuy waxtaanee développement bi man fan yee bu ma demee France dem naa si école bi gën a mag ci Paris muy Sciences Po nga xam ni boroom xam-xam yu bari fa lañ jàngee ma fekk leen ñuy waxtaan ci le métro de Paris en deux mille trente cinq naka la war a mel donc réew dañuy waxtaanee développement bi te suñu réew Sénégal ak Afrique sax lay wax li tax mu gën a tardé mooy duñu jël boroom xam-xam yi ñu boole leen ci naka la réew mi war a doxe c'est très important ce que je suis en train de dire boo xoolee il faut penser le développement développement du lu ñuy xëy nii rek def waaye itam du lu benn réew tamit benn nit rek bi yeewu def même bu dee président de la république moo tax il faut mobiliser toutes les forces vives de la nation et penser le développement avec eux parce que l'implication des li may wax ne dinaa ko olof l'implication des forces vives de la nation dans le développement est important parce que ñi xamante ni ñoom la ñuy defal développement bi mooy population yi aujourd'hui président ne prend pas le rares sont les ministres qui vont prendre le terre c'est les populations qui prennent le terre donc su ñuy def lu mel ni train express régional am na solo population yi nga xamante ne ñoom ñoo ci yéeg pour di dem ak di ñëw ñu impliqué leen ci su ñuy def lu mel ni BRT am na importance aussi ñi nga xamante ne ñoom lay romb seen koñ parce que dafay si impact environnement yu ama am solo dafa am ci ñu woo leen ci moo tax ren aussi le thème centrale de l'événement thématique bu mag a mag bi mooy responsabilité sociétale des entreprises parce que dafa am si réew mi ay entreprises yu mag a mag ay entreprise pétrolières ay entreprises télécom yoo xamante ni souvent ay multinationales lañ ay doomu réew mi moomu lañ parce que suñu économie c'est extraverti yuy def ay chiffre d'affaires ay milliards yi milliards yi milliards te du ñu def lu tubaab di wax responsabilité sociétale d'entreprise te jii boo demee ci réew yi gën a développé Europe dañuy da gis entreprise bu mag a mag yeewu ni day tabax poste de santé wala nay tabax hôpital de niveau 4 wala day defaraat prison bi wala day defaraat koñ bi donc yooyu il faut ñu def sensibilisation aussi pour que entreprise yi nekk Sénégal yu gën a mag nga xamante ni ñoom ñooy def les recettes yu gën a mag si euh, xaalis il faut ñu def lu ñuy wax responsabilité sociétale d'entreprise il y a des entreprises sénégalaises qui font euh, une forte rentabilité financière comme la douane comme Orange comme entreprise pétrolière yu fi nekk di jël suñu pétrole ak suñu gaz comme boo demee Sabodala ñi nga xam te ne ñoo suñu pétrole suñu euh, mine di génne or bi il faut que les entreprises puissent également Euh, de, euh, développer ce secteur-là qui est la responsabilité sociale d'entreprise. C'est le thème de cette troisième édition. Donc, mesdames, messieurs, pour résumer un peu en français encore, avant de vous donner la parole, je suis très honoré en tant que président directeur général groupe Cet Afrique, qui Euh, la structure numéro au Sénégal de l'événementiel institutionnel, de vous convier tous à la troisième édition du Meetup de Afrique qui aura lieu le 4 et le 5 ici au King Fat Palace. Cette année, nous avons mis sur le programme un gala euh, animé qui sera animé par Youssou et Viviane à la première partie. le 4, 5 panels le 5, avec une thématique globale qui euh, l'impact de la responsabilité sociétale d'entreprise Euh, sur l'économie nationale, comment nous pouvons faire pour que les gens puissent comprendre les RSE euh, et responsabilités sociales d'entreprise. Donc, euh, je serai honoré en tout cas de recevoir toutes les entreprises, de réunir cette année tout le secteur privé sénégalais, en tout cas pour la troisième édition du Meetup de Centrafrique. Je vous remercie.